di ko jëfandikoo la ma daan merloo xamatuma fu mu féete ñooñ ñoo xam njariñu tarixa bi ñooñ ñoo ko dund mën naa la wax turam kon nag sayidna Cheikh kuy njabootam ku jokk ci moom mu jokkale ci yàlla kullu man laaqaahu yadri annahu ruuxu tadaani c'est le sens de la proximité salaamaaleykum macha allah jazakumullah baax na sëñ Issa su ko defee Mansour Seck waaj moom it moom man bu ma nee tënkoot baax nag ndax njëkkante kii. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. xam naa ñu ngi nuyu ñu fi teew di jiital Cheikh Seydou Mouhamed Moustapha. di rafetlu thème bi Haj Bachir def. wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañ ci ni mu traité exposé bi. xëy na dugg na ci biographie. a tariqa atijaniya mais dañuy def benn contribution bu ndaw rek ci biir waxtaan bi xëy na bu ñu tuddee Tijaaniya jaar na aussi itam ñu tudd contexte bi tijaniya ñëwee woon ak période boobu noonu fan la imaanite toll woon parce que bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jógee ñu génn ci jamono saxaaba yi taabiin yi jàll dañu dem ba ci lislaam bi ñu rax ci bakkan dugal ci lu nekk ba tax ku mel ni Shawqi sax nga gis révolte bi mu def ci kaw arabi ca yaa gis wata tawxid ba ci inna alladhina tawarasuki ala alhawa بعد ابن هند طالما كذبوك مي شيخ بيم نيوي ييغ ني جامونو بي ني دوندو تانك كريي وون بنين انفيرونمون دو ني مانا سوفي نيت ني موتاخ مو فخه با ديف ريفولوسيون بو ام سولو جي بير تصوف جينا بيكو نيوم جونيت تاخاوالي مي ثور بيم ديف جي بير تصوف moy xalaat yim ci indi parce que bobu dañu miinoon tasawuf bo xamni dafa delu ci tarbiya al alxalwatiya ustaas wax na ko sank mo mu ñëw indi tarbiya bo xamni a tarbiya bil himma wal hal wan tasawuf du nek nekul ni da ngay sol yëre yu xotte ko wala ngay lek ay xobi garab wala ngay def yëfu dof mais laysa tasawuf lubsu suufi turqianhu ولا بكاؤك إن gannan magnuuna ولا سياح ولا رقص ولا طرب ولا اضطراب كأن قد صرت مجنونا ما بل تصوف أن تصفو بلا كدر وتتبح الحق والقرآن والدين ما دخ فصم بوبل اندي ما دخ ويكت بوخني بلا خلوة ربا ورب بخلوة فشتان ما بين اليزيدين من هلا ما يفصم بسرين بابا كار وخي تام تدوغا سانك مي ليش ام سولو مي ليش خال حاج مالي وخون مالوريزمون باتو تربيه بوب ني دان ديفا ري ديمب تاي جيل نان بيكو yàqkat yi jëlee tey tarbiya bi tasbiya la léegi maanaam ndëgg sërëx la léegi ñu bare dañ lay woo pour tarbiya mais boo ñëwee dañ lay utiliser mooy li suñu saa waxoon ni dañ leen corriger loo mais récupérer loo wuñ leen mais malheureusement ñu bare tey ci tasawuf am dérapage ci am ba dañuy récupérer bi des mooy wal iradatu iradatul mardiya wal xarqatu xirqa wal hadiyatu rishwa wa raxilul yowm ila allah fi aazzu min bay baydil anuuq kon yooyu bokk na ci yi nga xam ne bi tarixa cheikh ñëwee fexe na ba changé loolu ba indi at tarbiya bil himma wal xaal ba defar nit tey ba mu dem mën a ànd ak waa malakut te du ànd ak yenn yi bilaa ajzin wala idman fi ñuy jeexale mooy kenn mënul tudd ci héritage mystique bi nga xam ne moom la tarixa cheikh doon na ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te waxuñu li muy tabax ci côté ruux damay xool sànq ci istixfaar bi ñu la jox ci wazifa ak لازم بوخولي برسك كذي أنا بيبخوله لي تاريخ آه، طالب تيجان كذي استخ استغفار مدن 9000 آه، ولا 44600 كذي استغفار دين قدر فسق أت لينه دفتي أي هاي لا لا مدن 119000 ولا 198000 كي هاي لا لا أكلف ذو الجلال لينه دفتي صلاة على النبي مدن 118200 dix par at imaginel ki la organiser sa dund ci façon boobu ba ci at bu jot nga def lu toll noonu bu ko yàlla nangoo ci côté ruux li nga tabax lan la kon tariixa bi tariixa boo xam ne la dafay dundal pas-pas di dundal ruux di ko tabax la ana wa wa amal la parce que ku ñi ci génne di nga xam-xam la shaa min ilmin وما دار من يد وما اختال من مد فدون اختياله سغل حج مالك غورغي مو واخ افنيت اسباب الحياه دراسه وبلوت كل وسائل العرفان كون مدرسه التصوف امنا اي غوري سي ген يو خامني جادنا سي يينن ادي ني بريزانتي لين والسلام عليكم ورحمه الله جزاكم الله خير والله بارك الله فيك <laughs> آه، اوكي سي منصور مو واج مو مو نيو سن مبوك علي بن علي بن جاي Mm-hmm. بسم الله اها اسكي لله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أمنا في هذه العجاله الضيقه نقدم تحياتنا وزياراتنا اولا الى قدوتنا الشيخ محمد المصطفى سي قبل وندعو الله وندعو الله ان يوفقه لما يحب ويرضاه امين بهم وان يتم جميع تمنياته بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم امين امين xam naa mbokk mi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax oustaz di kontaan di wax lii ñu mel ne yéen ay jaas ngeen ci tariixa bi mm-hmm. ñu ñaan yàlla yal na yàlla guddal sa fan wa nasalullaha bi jaahi qudwatina a cheikh mahamad moustapha si an yaktubaka fi diwaani xulaasatihi fi diwaani xulaasati ahli mahabbatihi wa wilaadihi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee tudd nga yu bari mm-hmm. waaye ñaare ñu mel ni yéen comme gis leen du yomb mm-hmm. te di dañuy faral di liir di dajeeg ñu pànk lool bu leen gisee dañ ci profité ndax it boo jàngatee da ngay xam ni cheikh nattu bi Cheikh Ahmed Tidiane ak Chérif Fatimi nattu bi da ngay naan lu jaadu la ci moom parce que moo fekk lu ñëpp di xëccoo mu jël ko seex ko ku def lu mel noonu nag di nga bouleversé lu bari moo tax ñaar li dal ci kawam foog mu dal ci kawam ndax léegi boo seetee ba cheikh feeñee ba léegi da ngay xol li ñu jël ci ay milliards diko déployer pour xex ko waye da ngay gis ni rek mbir mi day gëna jëm kaw lolu mbaxu yalla la nga gis xale bu tuti jang ñetti araf waye dañ koy préparer préparer uniquement pour Cheikh amadou Tidiane jox ko lu jeex waye day mujj rek fay wala mujj bu yalla baxé ko moñé ku ñew topi ay wayjurum ak topi ay baayam yal na ko yàlla defal ñëpp bu ko defee xam nga tuddu nga sank lu jëm ci al khatmiya ak katmiya ak khutbaniya ñen ñi seen problème man sama ci jitu moy al هي التي أعلى مرتبة من مراتب القطبانية ولا بو قطبانية مو غنا ماغ ولا الكتمية مرتبة قطبانية قطبانية مرتبة قطبانية أو الختمية أو الكتمية هي أعلى أملا بين بكي مي كيسيون ci côté jawaazul maani bi nga xamante moom lañ considéré mu nekk constitution tarixa bi ndax benn téere ci tarixa bi gannaaw moom mu gënoo koo kawe waaye ni yàlla ni mu nattoo cheikh ci ay waxkat ak jëfkat noonu la nattoo jawaazul maani waaye natt bi mu ci gën a métti tuuti rek te mu xaw maa jaaxal man naa la ko posé mooy benn téere boo xam ne ki ko def moom كان لتي وطريق بدون كل فرق نك وين كتة تان تان واي مثير مثير المقصد الأحمدي بس كدفوت دنيو مم مو جيتو حليو حلازم برادة حليو حلازم برادة سيخ وارو نكون مثير بي وحي شيخ منكي منكي تي جواهر معاني واي المقصد الأحمدي بوكو سيتلو مو جيتو شيخ ملاني حليو حلازم نفرت انتحال تثير بوب لأنك بوكو لنيونرو أسلوب نيونرو وحين نيونرو بروسيس bu ko defee loolu nekk suñu problème tam waa ji nekk ci biir koo kooku bëggoon naa nga defal ma ci ay révélation benn bi ci topp mooy ismulahi azam dafa bari léegi xam nga sànq oustaz tudd ko mooy léegi tariixa bi da ngay gis ku jug rek def comme man gàddu kurus te leen rek mooy sa objectif mooy du jaamu yàlla waaye da nga naan daanaka presque àdduna la te la ngay séentu mooy ismulahil azam may laaj ndax ismulahil azam mbiru aduna wala mbiru alakhirah la ndax bo xolé bu luxul amaan bu bu cheikh soukayri da ko faa tudd waaye ni mom mbiru alakhirah mu moo ko yëkkati waaye mbiru aduna yëkkatiwu ko way li li li ma xaw a jaaxal ba mu jàngatam li tax ma lay laaj question bi moy dafa tuddu ni wa huwa ghayru salihin li shuuni dunya wala yuktabu على الصفحات والأوراق بل يعطى من شخص لآخر bi talqiini famman bi famin te mu ni kenn du ko